acrobatie bokk yi weddi gis bokk ca acrobatie mooy cunguñ cangañ fii pencum mbaywaad nii la oto yi di def ci barab yu mel nii yéen a ngi ànd ak waa Touba foo ci seen jataay bi ñu tuddee tubaa ca kanam dellu siwaat fas yéene ànd ak yéen ci lépp loo xam ne nii ay jafe-jafe la te ñu war ci indi ay saafara mbokk bët sebbi na sëriñ taxaa yal nañu ko yàlla fayal yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ñaan nañu dellu ca tool ya yal nañu yàlla may nawet bu nangu tabarkeel barkeel waaye mbokk yi ndax xam ngeen ne fii lu mat ñetti at a ngi nii nii lay mel gis ngeen ni ci oto yi di jaare ci diggi dëkk bi ñu def fi tali ak li tali di jar ñu abandonné ko ndox mi nangu ko ba mujj koo yàq ba gis ngeen cunguñ cangañ oto yeeg nit ñëpp nii la ñuy def ñu déglu nag ñi nga xam ne ñoo koy dund at yi yëpp ñu nettali leen li xew fi ci dëkk bi ci pénc mi di péncu Mbaye Wade tali bi day moom xanaa liñ ciy naqarlu mooy bi mu yàqoog léegi dafay day bëgg a jël temps te kenn jéemu ci dara te daanaka yoon la boo xam ne vraiment sax dañu dañ fiy jaar daal te ni mel ni noor bi bu nawet bi ñëwee moom kenn dootu fi jaarate moom yàq na koñ bi yëpp xam naa daal buñ ci dimbale bu baax nag seetaan war a defar dafa bari moom waaw vraiment ñun ngi ci jafe-jafe yoo xay nii dafa yàgg nun parce que depuis ñetti at ñetti Kazu Rajab jàll na ci yoo xam ne nii fii gisuñu lenn lenn duñ ci saafara guddi ak bëccëg ay nit dafay xeex bu nawetee nag la raw ndax safari dañuy daje kii ni du ma jàdd kii ni du ma jàdd duñ mën a tàbbi ci ndox mi bu boobaa xam nga bu dee ñaar ñoo xay ñu yem dañ bëccëg ak guddi dañuy daw di wàllu ji ay nit xeex na fi oto daanu na fi ba démb ci bëccëg la benn oto ñam bi dikk maanaam tëccu pënu ba ñun ñëpp dañoo ci daw wàllu ko waaye yàlla def na tuuti daanuwul léegi nag ñuy ñaan kilifa yi nga xay ñoo ne ci dëkk bi lu ci waay man daal ngir yàlla nga ñëw dimbaleenu ko ndax xam naa nawet baa ngi ñëw te noo ngi ci jafe-jafe yoo xam nii ñaari at yi ñu ngi koy dund te ren la gën a garaaw nag waaw gis ga sareet mbaa bi ni ñuy def nii maanaam bés bu set sareet cool na fi moom bu du doon benn sareet sax bés bu set sareet bu sa fi bagage boo xamul ba jaar fi dama leen di wax ni leen ngeen fente nii sës ci ci ci bi waaw waaye loolu bëgg nañ kuñ ci kuñ ci dimbali ci kasulajik bi dañoo mujjën sax am ay yërmande yoo xam ne maire di doon jéem a buub di fi def waaye xam nga li buub it mënu ko ok parce que day gën a taqal pënd bi gën a bari noonu dañoo defoon ni dëkk bi sax maanaam xanaa nag daa amul maire yi wala yooyu oto yi fi yàqu kenn xamul nuñ toll oto camion daanu na fi daaw boo xay ni euh, mi ngi sëfoon repasse daanu na fi ba ay quelques saako la bàyyi ci biir ndax oto bi bi mu xaban ba mu daanoo euh, xaaj bi daa tooy yàqu ñun daal bari bi wax dëgg yàlla jàppoon nañ ni daal am maire du am ci dëkk mu mel nii moom waaw loolu daal ñu ngi leen koy jàmbat waaw waa Touba ci kanam képp kilifa boo xam ne nii xam ngeen ni su ngeen ko waxee dinañ ci dugal ay kàddoom ñaan ngeen demal nu fa ndox suñu tànk jëriñu fa ñu nag soow nañ ba ba sonn gisuñu maire gisuñu kenn. fii nag euh, mooy euh, route de boo jógee ci corniche bi jëm HLM yi fi ñuy wax ngi gis nga foofu la tollool nii. xeeti kàmb yu mel nii dafa bari ci dëkk bi lool te boo seetee la plupart. xeeti accident yi am ci route bi yëpp kenn nay moytu morom ci kàmb gi daj ca morom te loolu li koy waral euh, kenn mooy bëgg ndox si zone bi mu nekk ñu ne ko tuyau ba nekk fee moo gën a dox moo gën a baax moo pression mu ñu bënn tali bi bënn googu nag bu ñu ko xasee bënn bu doxaatee un an deux ans da ngay gis suuf si rës fekk si ndox mi fa nekk bu rësee nag loolay waral mu am ay kamb yoo xam ne doo ko gis fii ak egsi woo ci ñu koy moytu sax mooy ñi nga xam ne jaar nañ fi jaarati fi mais ñi fi mës a kii moom dañ ciy dal tegu seen quartier toj voilà ñu ko xam di ko moytu daje ko ko xamul ñu mën a daje loolu na day jër ay euh, maanaam ay yàqu-yàqu yu bëree bëri ci dëkk bi euh, kàmb yi nag du jeex foo gis ci dëkk bi kàmb la moom foo gis tali foo dox gis ko loolu nag man li ma ci gën a xalaat loo xam ne moo ci mën a dëkk bi moom kenn duñu ko defaral te la sëñ Fall waxoon naan liggéey sëñ Touba ak xool asamaan yam jorul boo xante option bu nee ngi fi loo mën a jàppale liggéey sëñ Touba mais gisuguma nag kuréel goo xam ne taxaw nañ ànd takkatoo fu ñu gis kàmb fexe ba defar ko ba mu baax wala fu ñu gis sàmb signalé ko ba loolu jóge fa boo continué waate tamit ba ca kanam ci après HLM yi noonu rek la yàqo bu ñu moytoo mu def noonu am na yoo xam ne mënoo koo moytu ku ko xamul bu ca dalee toujours rek am na problème quartier gis nga oto ni ñu koy ñu dem xool yooyu yaa ngi gis oto yi ni muy def fii tamit dafa xóot comme noonu ni mu def rek nga xam ni saa bu fekkee ne raakool bi bënn ak ndox mi pression ndox mi génn na ba dem bu buñ doxee benn diir tuuti da ngay gis mu rës oto bi nag bu ci communeul saa bu ci dalee quartier bi bu fekkee nag oto yu commune di teggente mooy waral soog bi am ci diggante yi xam nga lii defar nañ ko ci màggal gi waaye boo xam nga ni liggéey bi moom teguwuñ ko ci yoon ndax dañ ko dab daaxee rek nii tekki mais defoon ko benn doodaan sax mu xaw a tane moo tane yaa ngi dégg mais ñu xëy rek bàyyiwaat ko mu doon benn kàmb goo xam ne nit dina ci dugg génn te du ko yëg te li muy provoqué bari na lool. tookoor ba moo gën a grave fuuf gaa ñoom defar nañ ko ci màggal gi mais defar bi des na oto dafa daw mukk te jaaru ci ay kàmb yaa ngi dégg bu nawet bi ñëwee pare na boo continuer ba station Daara Khoudoss ci kàmb yi gis nga noonu noonu la mel ñaari étage yaa ngi dégg boo demee ba ci rond bi nga xamee ni mooy kër Seexul Xadim gi gis nga am na kàmb. kon defe naa ni daal euh, mënees na cee gën a mën a jël taxawu ci te xam ni yëf yi moom matalewul fépp mais am na loo xam ne nag ñun waa dëkk bi ñooy ñëw taxawul suñu bopp. mbokk yi gis ngeen wër nañ ci dëkk bi bi ñu jógee Pencum Baye Wade jaar nañ Daaru Rahman jël nañ yoonu Belel ñëw nañ station Daaru Khoudoss ci lenn ci barab yi nga xam ne dañ leen a sàgganee ci dëkk bi ñu yàqu nawet bi ñëw. bu nawet jotee kenn dootu ca jaar wala dañ cay jaar ak ay jafe-jafe yu tar waaye mbokk yi yéen waa yoonu daaru yéen waa péncu mbay wadd yéen waa yoonu belel yéen ñi nga xam ne yéen a yor ay kàmb ay at mu toj oto yi di fa jaar di daanu xanaa bu ngeen gisee kàmb gi nekk ci buntu kër sëriñ tubaa Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul fii nga xam ne fi la Serigne Mountakha di xëy bu ngeen gisee kàmb gi mu doonoon tuyau bu toj ndox mi ball ñu fexe ba arrêté ndox ma boobu ba léegi mën na ñetti weer kàmb gaa ngi fii te fii la sëriñ di xëy fii it mooy buntu kër sëriñ Touba léegi nag kon lii lu ñu sos la wala bëgg a wax la ana ñan ñoo war a lijjanti lii fu ñu ne mbokk yi ngir jëmi sëriñ Bamba lii jaaduwul bu ñu demee ba buntu kër sëriñ Touba sax ak kàmb di fa nekk. dafa ngeen ne buntu palais de la république benn xeer dong dina fa taxaw 24 heures ñun fii moo ñu gënal palais de la république. fii moo ñu gënal Champs-Élysées moo ñu gënal Matignon ak feneen kon lii jàpp ngeen ne lu jaadu la te dëkk bi yëpp nii la mel kon bu fekkee ne buntu kër Serigne Touba gi nii lañ ko bàyyi kàmb ñetti weer te lii bés bu set oto yi ngeen gis ñu du fi tourné di fi def lépp dëkk bi daal la ngi nii mbokk yi ah ñun nag dañuy wax naam bu ñu waxee duñ ñu faale duñ ñu déglu duñ ñu xool waaye it ñu wax ngir jëmmi sëriñ Bamba rek mu ngi nii daal lii ci buntu kër Serigne Touba waaye nag bu fekkee ne warmaa lu ñu jumaa ji warmaa lu ñu burku Sëñ Tuubaa nan la ñuy warmaalee pencu mbay wadd wala ñoonu daaru